convention bi ñu def loolu la ñu président Macky Sall sant ndax créé na fi ay structure mais pour structure efficace ci seen wàllu liggéey il faut ñuy lëkkaloo di jokkoo di waxtaan di def kii su defee benn keneen ki complété ko su ko defee mën a nekk ñaar yàlla dogal 3FPT ñëpp gis nañ pexe yi nga xam ne ak jëf-jëf yi nga xam ne mu ngi koy def pour accompagner les jeunes du Sénégal

xanaa ñaar ñooñu donc war nañ mën a àndandoo suñu àndee dina yomb loolu mën nañ ne moom moo waral convention bi mu fekkee tamit ñun dañu ne suñu cible jarul formation jarul xam-xam jarul dara ku jàng ku jàngul mën na ci bokk waaye buñ koy wax xamoon nañ ni tamit lu ñu ñàkk jàng ñàkk jàng yi tamit war nañ leen accompagner pour ñu xam tuuti ci wàllu mbay loolu am na ci wàllu bu am solo boo xam mi 3FPT ko donc loolu moo tax ñu daw ñëw ci 3FPT suñu gisante nag mun a yomb ndax ñoom i tamit gis nañ ne ñi ñuy formé doon na gën a baax ñu jël leen dugal leen ci dag yi ñu mun fa mën a am liggéey parce que formation yi tamit balaa moo gën a am njëriñ mooy ki ngay formé mun a am fenn fu mu dugg mu nekk mbir moo xam ne donc sotti ci la ak def ci ñun ñaar lu ñu bugg yëpp mu nekk donc lii waroon nekk lu yàgg lu am waaye peut-être yàlla ci suñu jamono la ko dogale mu ngi naan ñu ngi ñaan yàlla loolu ñu muurloo ko

macha allah am nañ ko te gëm nañ ne bu soobee yàlla si at weer yi di ñëw population yi notamment les jeunes dinañ ci gis seen bopp. maa ngi koy wax sànq directrice bi am na ñu dak Kër Momar Sarr boo xam ne mun na accueillir plus de mille jeunes en même temps am na nañu dak CFA te am nañu yaakaar ne Bawol yi tamit suñu dak bi mu ngi waaj a ñëw ak ndakaaru Jaay bi nga xam ne mooy sangalkaam njott nañ ne au minimum fii ak at dinañu am ay infrastructures yu ñuy permettre. ñu mun fa dugal au minimum mille deux cent ba mille cinq cent jeunes ñooñu nag tey dañu war a taxaw pour gunge leen ci wàllu formation ba nga xam ne dag yooyu ci pare kenn du am excuse pour bañ leen accueillir pour bañ leen accueillir foofu mais fekk ñu former leen bu baax a baax loolu nag njott nañ ne ci lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak 3FPT incha allah suñu équipe bi suñu continuer liggéey bi dès demain dinañ mën a def ay plan de formation yoo xam ne jeunes Sénégal yi nga xam ñu ngi ñëw 3FPT di solliciter formation ci wàllu agriculture ak jeunes sénégalais yi ñëw Prodac di sollicité ay formation wàllu agriculture suñu leen boolee dinañ gis seen njëriñ ci li nga xam ne moom la ñu président Macky Sall dénk. dañuy dolli remercier monsieur le coordonnateur ak équipe bi mu àndal ndax liggéey bi dañ ko fas bu yàgg nekk di ko xool di ko xoolaat pour tey jii mun a ñëw signer convention bi signer signature convention nag dafa ànd ak ay action yu ànd yu yu tegu ci ginnaaw action yooyu fi ñu toll nii identifier dañ ci yenn action comme ni mu ko waxee sànq am convention ak ONFP ñun di tamit am nañu convention ak ONFP donc loolu yëpp dañuy boole suñu doole suñuy compétence ku ci nekk say mission ñu xool nu ñu leen di jàppale pour que ndaw yooyu ak jigéen ñooñu lu mu gaaw gaaw ñu am formation yi ñoom aussi mun a beru loolu mooy loolu mooy ji euh, suñu rôle ci signature bi di fatali ni que tamit li chef de l'État di wax équité territoriale dañ ko wax a def ba mu meut

signé dañ koy signé pour jël ay engagement ferme mais lii mooy suñu liggéey liggéeyu 3FPT pour ñu gis ko pour mu fës il faut que ñu gis ñooñu ñu formé gis leen ñu am xëy